loolu baax lakkal mujizatuna jazat kullal wara dem màkk ñu ko a bari na waaye ñu koy def du bari lakkal mujizatuna jazat kullal wara a dem rek ñoo fay dem ku fa yàlla حديث من جار من جارني فكانما حد جارني لك معجزات اجازت كل الورى وزياركم زيار من انا من زيار كسوف سيغنا محمد كان من دليل لك معجزات اجازت كل الورى يا يا يا باترون باترون اي موتخ نيب دي لا زيار لك معجزات اجازت كل الورى لك معجزات اجازت كل الورى patron ndax yaa jóge sa bopp. laka mujizaatuna jazat kull alwara. kon dañuy ñaan kaa liggéeyal la rab. laka mujizaatuna jazat kull alwara. yaay dem nga mbaa yàlla nga dem. laka mujizaatuna jazat kull alwara. bati xool ki mu doon tàgg mooy Seydina Mouhamed. laka mujizaatuna jazat kull alwara. ba dee daa xool teeku. لك المعجزات نجزت كل الورى ما يا دفيا لك المعجزات نجزت كل الورى ما يا دفيا وحدني تالي لنجلكم لك المعجزات نجزت كل الورى ناري سكر يا ريور كوسو لك المعجزات نجزت كل الورى ما كمان نغلو نغرت سكو لك المعجزات نجزت كل الورى bi dafa gudd fekk leer nga tey jaabal bu daan doxox day mel ni bu picc mi nga xam ne day dox ni muy doxee noonu la yéen bi daan doxee kon ñu ngi ñaan géeru géele yaakaar itam yal nañu yàlla fay sa barke moo leen ku bëgg a dem ziar yéen tamit ñu ngi ñaan nga jug taxaw ngir jëm si màggal Seydina Muhammad lakal mu'jizatuna jazat kull wara li nga am bay yóbbu màggal sa yaay yàlla yàlla may na ko nga yóbbu sa baay ma lakal mu'jizatuna jazat kull wara kon Abdallah bëgg nañ ci yow tey bëgg nañ ci yow ëllëg lakal mu'jizatuna jazat kull wara Adja Juma li nga dund yàlla yàlla ful ko nga dund li ñu toll lakal mu'jizatuna jazat kull wara dañuy jël li jëm ci soppe ba Seyduna Muhammad mi fi teew góor ak jigéen mag ak ku fi gën a bëgg Seyduna Muhammad jugal sa xol ñu màggal borom bareeru wal ba jëmbe xulubi ilal xabibu tamilu wa ma bi xata saidun wa dalil منه إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل صلى عليك الله يا قلم الخطاب ما قل مساق وسار جميل صلى عليك الله يا قلم الخطاب ما لك بدر في السماء الدليل غزا li kulli a rasulu ajja ajuma yaa ziyaara ci yonent bi Seydina Muhammad nabi judd na guddik altine di guddi fukk ak ñaar ma ne ci weeru gàmmu la gane àdduna fii waxtu saqar Seydina Muhammad ba mu juddoo moom mu ngi sëb taqul mere taqul mere xetam ba neex jëmam rafet ba tamit tus nga ko ma judd mooy li wóor juddoo ba xëy ni ma bor dañuy gisaane ka jabar si Abdoulaye si soppe ba Seydina Muhammad ba mu juddoo moom Rasulalaay safara faris bépp fay seytaane yëpp toog di say Iblisa naan kii judd tey moo may xatal dina ma lor dina ye naan ñun jommi nañ li war a xew xamatu nooy matunu ku naaw bi diw bés la ku di malaaka yaa ngi bég si juddu waa ji yàlla ku di julit moo sasaat ngay leen eskay sëtu mudar Seyduna Muhammad Abdul Ilahi bayamay julee ci baayu Fatima bi toobi ndayayama Amina moom la ci mum seega taji rabbilaayi jur sabata waaye abdul manaat biila waaye muy baayu qaasim culur abdul manaat doomi xusay dilaa baag mu rabu leen mooy lima leen yow kaa baag lu way qaaliba badar kinaana taag xusay mata bul ma fateen mudrikata jàppal Ilyas lii bum la taa baayu Ilyas moo di burdar si abdulaay waati nga daw na Safa daw na Marwa Seydina Muhammad ya Rasulallahi mori jaante ki seen boromam ci Musaba ki la Yàlla teral ma zahal basar wa ma taala qad raa min ayati rabbil ci Seydina Muhammad Rasulullah moo gis ak boromam yàlla may ko may yoo xam ni dootul jeex yàlla may ko may yoo xam ni du ko may keneen moom borom barrière or ba ca Medinatu Munawwara ku bëgg yàlla sopp la bëggal Seydina Muhammad mooy